jërë ngeen jëf mbokku internet yu bii pro ñi ngi leen di nuyu di amaat mbégte di jàkkaarloo ak yéen mbokk yi nag euh, may may may profito xam ngeen sama jàng bi mu jàllee ba léegi maa ngi doon noppalu gisu leen ma ma génn waaye doon noppalu rek xam nga coono bis moo mel noonu di profito nag di sant ñi ci ñëwoon ñëpp euh, ak ñi ñëwut ak ñi amoon yéenee ñëw ak ñi yoon nee ñëpp maa ngi leen di sant di ñaan yàlla. yàlla nu yàlla may ñu fekke ko di ko def ay ati at ci barki sëñ Tuubaa mi tax euh, ñu ko doon def kontaan naa ci ñi ñëw ñëpp ak ñi woote ñi ngi am mbégte bu baax a baax a baax mbokk yi nag tey ñu dellusiwaat ak yéen ci ci ci showbiz comme ni ngeen ko baaxoo xame rek dégg ngeen ñaari fan yi ñu génn coowal Baara Mondili euh, Wally Seck mooy tëgg Pape Diouf mooy tëgg ku nekk di wax ñu bëgg ci am ay leeral nag tax ñu ñëw ci koo xam ne mbokk yi xëy na mën nu cee wax loo xam ne danañ jàpp ne lu leer la ndax mi ngi ci staffu Pape juuf ah, lu ma wax mel na ni waaye staff bi yëpp moo ko wax muy buur géwél bu Pape Diouf tey moom la ñu seet si pour bëgg indi ay leeral ci coow li ngeen dégg ñu dégg ko te xamuñu ni mu demee buur ñu ngi lay nuyu di la ziar di bàyyi nga nuyu ak mbokku internet yu Bprod. Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, di am mbégte nag di am kontaan ma di la félicité ci sa gàmmu gi. Ah, waaw bu fekkul woon nag. dañoo fekk Paris. vraiment mais amoon nañu yéene bi loolu ndax yow kenn du la tànkamlu ndax yow doo tànkamlu kenn waaw ah, vraiment yaa ngi ci métier ba pare tëddee jaaxaanaay vraiment moo taxit euh, kenn du la tànkamlu mais maa ngi ciy félicité di la wax ne nga ko feete at yu bari nuyu waa bi pro mm-hmm. di nuyu mbokk internet yëpp mm-hmm. di wax ni euh, euh, bari wax mm-hmm. du bëgg wax dafa fekk ni boo boo boo positionné xamante ni yow lañ jagleel ngay wax ngay joxe information yi parce que structure dafa am lu muy doxee mais mun na naa ne benn yoon ba ma waxoon rek doy na doy na sëkk mais ku ne xam ne ni ñun mënuñoo dem sans yéen yéen it mun leen dem sans ñun kon dafa am loo xamante ni dañ koy partager ak yéen duñ leen ko bañal bu la fukki sit doon jëlit da ngay obligé taxaw wax parce que ñoom loolu lañ am ci ñun ndax ñun it bu buñ leen soxlaa fukki sit yooyu dañuy ñëw jël sa événement publier ko du dëgg kon moo waral yenn saa ngis même nit ki fii fii fii fii bu yàggee sax doo comprendre mais day fekk ni liggéey bi moo ko laaj mënuma ci dara parce que structure dañ naan dafa am ménagère am adjoint am charge de communication am coordination xam nga am structure bi kenn ku ci nekk ci li nga war a nekk am matière bu akay kenn ku ci nekk ci li nga war a nekk bu jotee da nga cay nekk te man ci li man li war a nekk mooy leeral à chaque fois ci suñuy mbir fu ñu toll moo tax ma nekk ci kon maa ngi nuyu ñëpp. macha allah mbokk yi ni ngeen ko déggee ni mu waxee am na solo duggaguñu ci biir dëgg-dëgg waaye daanaka li ñu tax a jug xam ngeen ko ah mais nag euh, li li li lëmbe internet bi fan yi hmm? euh, internet yu bari bëgg ci am leeral. surtout ci waa kanwu PDG groupe di Pape euh, mooy Baara Mondi Pape Diouf day joué samedi le 28. gis nañ affiche am gis nañ affiche su Wally Ballago Seck njëkk loolu nan la demee. waaw li may wax ci euh, li ma wax ñëpp rek laay leen di wax. Euh, affaire bi ñun ñoo ko gisandoo ah. ah. waaye affiche bi ñu gis. parce que ku ne xam ne ne affiche su Pape na daw depuis le dimanche. parce que ñun bu ñu paree événement rek. Ah. le lendemain dañuy commencé waat promotion bi. moo tax ñun bu ñu paree samedi le 21 dimanche le 22 à 12h suñu affiche génn na. parce que ñun li ñu jàpp. Mhm. ñun lu ñu jàpp. mooy comme que signé nañu contrat de un an ak waa Baara Mondi pour tous les samedis. Mhm. ñun chaque samedi dañu war a tëgg. contra bu un an pour tous les samedis. contrat bu un an écrit noir sur blanc leer nañ. ok. Mhm. la ñu signé. ak Baara Mondi. benn. deuxièmement bu lu indi contrat bi mooy ñoom ñoo soxlawaat Pape Diouf c'est c'est pas dire que ne Pape moo dem seeti Baara Mondi. Ah. ñoom ñoo ko soxlawaat. parce que ku ne xam ne ne am na lu fi njëkkoon a xew. defoon nañ ko pap ñu dem ba yenn suñu sono ba tekk ñu ne ñu waru leen jouer parce que Baara Mën dafa nekk sur contrat te pourtant ñoom ñoo ñu woowoon mais comme que boo bëggul tooñ di kilifa da ngay da ngay moytu bu dara amee ñu ne yaa tooñ ñu retiré suñuy bagages yëpp dem kenn dégguñu. déggoo coow de vrai ou faux parce que boobu nekkuñu ci contrat kon ku ne ci contrat moo ne ci dëgg. parce que logique dafa am. ñu dem ngeen ñuy déggu gaynde dañuy dégg feneen ak feneen. Mm-hmm. pourtant gaynde boobu Pape dégg na ci lekk mais garaawul. Mm-hmm. parce que tamit bëggul tooñ. Mm-hmm. biñ ñu soxlawaatee bi album bi génnee. ñu soxlawaat Pape. Pape dafa leen wax clairement li fi amoon dootu fi amaat. ndax kilifa la. boo leen bëggee. parce que bee waxtaan nañu. en tant que famille amiablement ñu waxtaan. mais amul woon contrat contrat. Pape na léegi contra laay signé ak yéen. waa baara ma ni d'accord nañu am ne am benn problème pare nañ pour signer ak yow contrat ak noo ko bëggee Pape ñu wax ay condition mhm. ñoom ñu wax seen condition mhm. ñu waxtaan ba jiboo ñu signé contrat wu un an contrat bi ñu ngi ko signé la quatre janvier mhm. contrat bi démarré samedi le 14 janvier mooy suñu premier soirée ñu tëgg soirée xëy dimanche def affiche mooy samedi le 21 bi. samedi le 21 ñu tëggaat soirée. xëy dimanche def affiche mooy samedi le 28 bi. xanaa kon ñu ngi suñu logique contrat. Mm-hmm. Mm-hmm. ndayi mbili bi ci boppam ki moom baara mënd ci boppam. Mm-hmm. baas bi ngay seen ca kaw. bantu baara mënd ñu def ci Pape Diouf tous les samedis à baara mënd. moom moo ko defar. moo ko fa def. waaw parce que waa ji dafa nekk ci contrat pour tous les samedis. xanaa koy loolu kooku yaa ngi ci yaa ngi ci ndigal. sur notre grande surprise. jeudi ñu gis benn affiche bi ñu publier ci internet bi. xam ñu lu xew même lieu même heure même date mais ñu def ñun lu ñu war mooy yëkkati suñu téléphone woo la responsable de Baara Mondi ne li ñuy gis lan la mun ne ñu maa ngi leen di revenir à dix-huit heures ah. mu woo ñu ne ñu yéen war a tëgg ah. bien sûr logi moom patron bu Baara Mondi Badiane parce que kooku ah. waaw patron bu jour boobu patron bi ma woote parce que moom patron bi newu fi dafa voyagé. mais la responsable de Baara see c'est Badiane patron bi woo 18 heures daal dina yéenay tëgg xanaa leer na ñu continuer suñu promotion mais bu ñu continuer suñu promotion ñu dem ba ci ngoon ñu gis benn affiche boo xamante ni site Baara Moni la nekk ci biir site bi li li indi li indi li indi gars yi yëpp ne là c'est sérieux parce que site Baara Moni benn affiche lañu publier te ñoom bu ñu publier benn affiche mooy ça veut dire que mooy am ñu jël suñ ñu jël suñu téléphone woole responsable muy bajaan nekk ko dañoo gis ne yéen waa Baara Monti da ngeen affiché da ngeen lancé benn affiche ne moom mooy tëgg bajaan ne du ñun waa Baara Monti lancé ñu benn affiche ñoom administrateur lañu ci site bi ñoom ñoo jël affiche dugal ko fa mu wax ñu lii mm. ne mais pas ñun xanaa loolu leer na waaw waaw waaw ñoom administrateur lañ ci biir siitu Baara di la Badiane wax. waaw ok. ñoom ñoo ko fa dugal. Mhm. ñu daan am problème. Mhm. parce que euh, comme que ñoom bon amoon nañ fa contrat. boo amee ci boîte contrat am nga droit nekk administrateur ci site bi. di di mën di jàll say pip. mu ne ñu carrément du ñun ñoom ñoo ko def. Mhm. ñu ne ñu kon ok y a pas de souci continuer suñu liggéey. ñu nekk ci logique boobu continuer suñu liggéey continuer suñu promotion. la xew. ci ñoom ak baar mën ñun duñ ko lijjanti parce que nag du suñu problème ñun lu ñu con suñ li ñu lijjanti mooy suñu contrat bu ñu lié ak baaru mondi ci loolu lañ sukkandiku ci loolu lañ nekk ba ñun at tout moment chaque jour ñi ngi ne la 28 ñoo ko moom dañ koy tëgg ba keroog yoon di def liggéeyam voilà ñu déggaat euh, ci ci ci ku bokk ci ñoom mu ne ñoom yéen xam ngeen ne la 28 ñoom ñoo koy gée Mhm. da ngeen di def semblant nii rek pour sëlëm nit ñi mhm. mais yéen ñi sax xam ngeen ne le vingt huit ñoom ñoo ko moom mhm. ndax am na contrat bu leer ak Baara Mondi bu doxoon ci diggante ñoom pour tous les samedis bu ñu disponible loolu laa dégg ñu wax ko samdi boo xam ne ñoom disponible nañ ko jéewuñ fenn ñoom moom Baara Mondi. d'accord na léegi dinaa la dinaa la laaj tuuti. je pense que ni yaa ngi ci site. yaa ngi ci événementiel xam nga tuuti événement. léegi déjà ñun bu fekkoon nekkuñ ci logique ñun même même ñun bu ñu waye dee Pape Diouf mat na mat gu toll ni du dox ci rumeur dina ne gars yi arrêté leen li ngeen di def parce que ruus na di nekk ci rumeur boobu ba bis ba jot ñu ne ko nekkoo ci dëgg en tant que kilifa yàgg ci musique beneen bi ci topp mooy ñoom dañ ne dañoo am contrat bu leer ne heure bi ñu fi nekkee ñoom ñooy tëgg waaye léegi ku am contrat boo xamante ne nga ne chaque samedi yaay tëgg nag ñu compte ñu signé la ko <laughs> booy booy tey jaa booy wax ci logique rek ki taxaw ne am na may signé ak yow contrat chaque samedi mm-hmm. un an mm-hmm. kenn la mm-hmm. ci lu ñu wax parce que man xaw ma samedi bu ma libéré mais damay sukkandiku ci kii ne ma chaque samedi mën ngaa toog mille samedi doo libre ndax affaire artiste la mais ki signé moo tax mu signé ak ñun. waaw kon léegi bu ñuy xool ci avantage dëgg. Mhm. ah mhm. ngay wax waxu contrat. dañ naa la contrat bi yëg na logique kon ki ne ci tous les samedis. waaw mi ngi mel ni nga ne ma rek chaque samedi ma fay la. ak ki ne ma samedi bu ma amee jot laa lay fay. ñoom at seen bopp. mais nag du ma dugg ci boobu détail parce que xaw ma lu ñu signé ak ñoom. Mhm. te nit du tooñ. moo tax ñun à chaque fois boo déggee ba tey duñ tudd tur artiste suñu yoon nekkul ci moom amuñoo ko moom benn problème ñun baara mundi la ñu amal problème parce que baara mundi lañu signé contrat. léegi ñu ñëw ci kon baara mundi. waaw est-ce que kon ñoom ñoo jaxase affaire bi. Mhm. man su ma déggee analise bi loolu laa mën a wax. Mhm. ndax mënuma jël ñaari artistes yu toll ni Pape Diouf ak Waly. Mhm. signaloo leen samedi bu nekk ñu mën a tëgg baara mundi loolu losigul kon est-ce que du patron bu Baara Mondi moo indi erreur coow li. moo tax yi ñu nit. ñu def li ñu war a def. comme lan. mooy topp ko. nekk suñu logique. ba keroog moom patron bi personnellement mu ñëw ne leen tëgg. xam ñu amaguñu information boobu. yéen kon ba tey vendredi nii vingt heures. yéen a war a jouer di suba samedi. ba léegi nii may wax ak yow. ñun. kenn jàkkaarloog ñu ne waru leen tëgg parce que nekku leen ci logique. gis nga bis bu ñu waxoon Pape Diouf ne ko nekkoo ci ah. amoo contrat. Mhm. waroo tëgg. Mhm. billaahi nañ defoon bu njëkk la ñuy defaat. maanaam kenn du leen dégg. kenn du ñu dégg. ok mhm. ko benn njariñ. gis nga coolee fi nekk rek. Paabo Waali woo Sidi woo Keeba ku mu doon. amul kenn kuy joué Baara Mondi. samedi jox waa Baara Mondi lu ñu moom nga ñu beeg 5 amu fa. ok Baara Mondi bu ñu koy joué c'est pour plaisir ak. ak say ak say fans mais jaraluñ ko jaraluñ ko mhm. mënoo fa gañaloo gañewul woon mhm. Pape fi yoon na Baara Mondi pendant deux moo tijji Baara Mondi mhm. bi muy metti moom lañ gisoon bu ñu nee Baara Mondi Pape Diouf a tax ah di ko jël les jours de dimanche lundi di jour ordinaire mu assuré tous les dimanches pendant deux ans di ko duy kooku lan lay def lan lay prouvé Baara Mondi ñu dinañ xëccoo Baara Mondi c'est-à-dire ni ko waa ji defee moo ñaaw ok léegi staff bu Pape juuf fan ngeen toll ak patron bu Baara Mondi. fi ñu tollu mooy contrat yoon la. Mhm. boo xasee ba am contrat yaa ngi ci yoon. Mhm. ci yoon boobu ngay nekk. Mhm. nekk ci sa logique. def sa ba léegi ni may wax ak yow. bu ma nit woon léegi jël jox ma réservation ma jël ko maa ngi ay xaalis réservation. pour suba barki yonent bi maa ngi ay xaalis réservation laa la génneel. nii may wax yow ma nit woowoon léegi ne ma bu dama bëgg a def soir su mën la indil waaw. Ah. Ah. ak ak bi ñu gisaat sànq. ma de na téeméeri affiche génn. man li ma intéressé rek mooy damaa nekk ci contrat. Hmm. man looloo ma intéressé. bu ñu demee nag ba ndey mbili bi ci boppam nga xam ne moom moom baara mu ne ma waroo tëgg su baba naa ko yóbbu ci yoon. Ah. ah si ci contrat laa nekk. kon xalaat nañ yoon man cee am ci lii nii. bon mënaguma ko wax. parce que toujours ñu ngi suñu logique. ba keroog ñu ñuy wax ni. Hmm. lii warul. wala ba keroog yoon di def liggéeyam ñu xam ne lii la yoon def mais parce que boo nekkee ci contrat nekk ci dëgg tamit da ngay doxal yoon ndax dëkk bi dëkk yoon la kon ñu ngi suñu logique ñi ngi suñu contrat ñu ngi suñu boo demee nii léegi baara moon da nga fay fekk suñu gars yi léegi bu bu ngeen demee baara moon di yéen pour installer ñëw di programme di waajal seen suba ñee ñëw di waajal seen suba confrontation boobu est-ce que erreur mënu cee am ñun ñoo ñooñu intéressé wuñ ñu su boobaa confrontation boobu. waaw nday mbili bi. peut-être moom dana ko lijjanti ci saas parce que xam ne ni lii danger la. xëy na su boobaa. moom dana réagir. Mhm. par la force. Mhm. parce que xam ne ni danger la. te danger boobu mën na jur lu nekk. kon su boobaa moom. Mhm. dana réagir par la force. mais ñun. duñu dellu ginnaaw. leer na. samedi bi. duñ ci dellu ginnaaw lu toll ni centimètre. waaw. mbokk yi euh, leer na euh, li ñu li ñu bëggoon a xam leer na léegi. waaw loolu laa foofu laa bëggoon a ñëw ñi nga xam ne ñu ngi naan léegi annulé nañ ko Pape tëggatul Waly tëggatul tëj nañ Baara di information boobu wér na wala wérul. waa loolu mënuguma ci tontu parce que loolu bu bu bu amee. nday mbili bi di kilifa gi di Pape Diouf ak Matar Diouf suba teel mi nga xamante ne c'est le ménagère ñoom la ñuy informer loolu parce que Matar mooy xaatim contrat bi Pape c'est le leader. ñooñu la ñu enfermer loolu. ñu ñëw neñu la saas ñu ñëw waxtaan ñu def def benn réunion ci saas yi xamal nañu ne lii lii lay yoon tëral lii moo jub kon léegi ñi waa charge de communication nañu génn leeral suba boobaa ñu dinañ génn leeral. waaw kon fan fans yi leer na ba tey da ngay wax fans yi suba ñu ñëw. ñu xaar leen waaw samedi le 28 janvier. Baaramondi à partir de 23h Pape Diouf mooy tëgg. man kay boo gisee ma naan suba xam boo nee samedi man naa sori mais boo nee suba ñu xam ne. suba. waaw incha allahu rabbi. waaw. ñu ngi Baaramondi. Ah. kontaan nañu ñu bàyyi la nga tàggoo. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Uh-huh. vraiment di am mbégte. di kontaan tamit seen liggéey. vraiment euh, yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo ci showbiz bi. parce que euh, yéen ngi jox gars yi information yu juste. may waxaat rek ne nañu nañu delloowaat xel yi. te jibi mi yor baada mu ni borom boîte yi. nañu xoolaat li ñuy liggéey. parce que dara jaru ko fi. mbiru showbiz kese la. nañu xoolaat li ñuy liggéey parce que euh, dafa am loo xamante ni. Mm-hmm. bu jubee ci dëkk mën naa indi fitna. kon nañu xoolaat seen liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te respecté sénégalais yi mooy ñi gérer boîte yi te respecté sénégalais yi xaalis jaru ko dara jaru ko business jaru ko gars yi rendez-vous suba baara moon yi incha allah. ok kontaan nañu euh, buur géwél ngeen amoon li taxoon ñu wax leen ne buñ ko amee lu bari mën naa leer yaakaar naa bu ngeen dégloo waxtaan wi dana feeñ ay leeral rek lañ doon indi ci ci ñaari côté yëpp euh, ku nu ci soxla disponible nanu wax dëgg yàlla ndax ñun danu jug rek pour ñiy dégg fans yi ak internet yi seetaan te nekkunu sax ci réew mi di dégg coow li ci Sénégal xam li xam xam li xew loolu rek euh, moo nu tax a jug Bprod am nañ mbégteeg kontaan doon jàkkaarloo ak yéen. waagaat <laughs> <laughs> sama xarit moom lu mu foor moom yàlla dafa dogal ni <laughs> heure bu ñu may am interview moom mooy yor kaa ma yow moom rawaan yi bokk nañu waagaan yow guddal fan ayca mbokk yi bég nañu waagaan juufa moom loolu sama séeréer bi kontaan nañ jërëjëf